asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer fukki fan ak juróom ci weeru rabiul awal muy weeru gàmmu ci atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa sallam dëpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan ak juróom bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na li ñu ciy tere tere wattandiku moom dibéer mooy ku ca watu wala ku ca tàggoo ñaanu bis bi. yow yàlla yàlla na nga ma saxal ci ngëm yàlla na nga ma def ma nekk ku jub tey jubale allahumma sabit nii wajaxal nii haadiyam mahdiya allahumma sabit nii wajaxal nii haadiyam mahdiya xadiisu bés bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku niru niru la aw nit ci ñoom nga bokk xadis bi abu daawud génnee na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum axrajahu aboo daawud waxtu julli yi suba waxtoom dana bi juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñeent tisbaar benn waxtu wu tegal fukki simili ak juróom-ñeent tàkkusaan ñeenti waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñeent timis juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñett gee juróom-ñaari waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom-ñeent loolu mooy waxtu julli yi ci Tuuba ak li ko wër